ñeneen nag ils ont franchi les limites non seulement dañu franchir les limites mais wax nga ko mbirum Khalifa Sall am na rapportu IGE bi donc euh, ñu dal di laxas jaan fexe jël ay tuuma yu fës teg ko ci ndoddam mhm. ci lañ jaar ba yóbbu ko fu ñu ko yóbbu mhm. mais avant loolu xalifa euh, Sall am na ay lu ko proposé jéem nañu ko wax bu bàyyi ay affaire euh, deal boobu bu ko accepté woon mbir mi du yegg fu mu war a yegg loolu rek day firnaal comme nu ko benn euh, borom xam-xam bu mag li nga xam ne théoricien du droit la doon ko wax mm-hmm. Prosper Veil le droit comme la guerre n'est très souvent que la continuation de la politique par d'autres moyens. alors bu ñu waxee waxu CREI également xel yi dem ci euh, Karim Wade nga bokkoon ci ay euh, nga bokk ci ay avocats tey est-ce que mën nañu xam ci lan la nekk. waaw man bokkuma woon ci ay avocats mais ba ñu rendre aviou wu groupe de travail bi taxawu naa ko ci taxaw naa ci taxaw bi nga xam ne yàgg naa ko taxaw ci àq ak yelleefu doomu aadama parce que à partir du moment où euh, groupe Genève bi sur la détention arbitraire dafa mm-hmm. jàpp ni euh, que amoon na ay jalgati dañu salfaañe ay àq ak ay yelleefam dama jàppoon ni mu tudd Karim sant Wade wala keneen dafa mm-hmm. nekkoon benn victime violation des droits de l'homme euh, ba ñu jógee ci yooyu ba léegi euh, defoon naa benn conférence Paris. Mhm. bu mag euh, expliquer ci porté wu avis bi. Euh, boobu bañ ko defee aussi maanaam pouvoir bi tam nañu lu ñu nekk lu nekk. parce que wax nañu dañuy wax li nga xam ne amul mais lépp li nga xam ne mos nañ leen ko wax gis nañ ko ci. Mhm. muy même ci biens yi nga xam ne moom la ñu waxoon ne dañ koy jëlee foofu déjà en 2013. Euh, am na benn émission bu ma defoon ak seen benn naataango euh, ma ne leen seen CREI bi tey quel que soit jugement bu mu rendre peut-être dina valable Sénégal mais bitim réew du fa jar dara. parce que dëppoowul ak ak ak yeleefu doomu aadama bañ leen koy waxee nekkul parce que ay expérience la daa am li nga xam ne dund lañ ko ci yeneen xeetu dossier yu mel noonu mhm. donc lépp lu ñu waxoon ci yooyu maanaam ba sànq ci suba amul kenn ci la wax ne résultat baa ngi nii c'est-à-dire que reddition des comptes lépp lu ñu ci woote woon léegi yaa ngi may laaj benn laaj mhm. est-ce que ci Karim ci lan la nekk euh, mënuma leen wax directement ci lan la nekk parce que këj naa ko jot mhm. ba mu nekkee Qatar ba mu génnee woo na ma jokkoo nañ et euh, gis na aussi que par la suite li ma ko waxoon yëpp noonu la amee léegi nag am na benn débat bu jiboon récemment moom mooy avant rapprochement bi di am euh, gis nañ ay diplomate ñi nga xam ne aussi ay fonctionnaire lañ mhm. moo tax ma ne foog ñuy respecter suñuy fonctionnaire parce que ñoom euh, dañu am lu leen tënk seen yoon nekkul ci politique euh, dem nañ Genève commission bi waxoon naa leen déjà ba ma defee confrance de Paris bi que Sénégal bu respecté wul avis groupe de travail bi euh, jamono di dina mos a ñëw groupe bi dina ko demander ay comptes. Mm-hmm. ñu demander leen ay comptes ñooñu ay juristes lañ am na ñi nga xam ne xam naa leen parce que ay magistrats yu xarañ lañ xam naa seen compétence ñëw euh, nekk ak ay juristes ay experts en face xam nga ku ci nekk am nga sa ngor. yow journaliste nga am nga sa formation am nga sa éthique am nga sa déontologie boo jàkkaarloo woon ak sax naataango journaliste am na yenn yi waxu ñàkk fayda yi nga xam ne doo ko wax ñu laaj leen laaj bu leer nañ est-ce que Sénégal dina respecter avis bi nga xam ne moom la ñu rendre bi nga xam ne benn ponk bu ci njëkk dañu ne Karim Wade est victime d'une détention arbitraire ponk bu ci ñaareel moom mooy dañu ko war indemniser adéquatement à la hauteur du préjudice est-ce que Sénégal dina ko respecter ñoom ñu tontu ne leen que Sénégal pare na parce que Sénégal n'a pas le choix lu ONU ko lal ñu d'accord bokk ci ñu ne leen pare na pour respecter ko. effectivement parce que bu dee def na demande. loolu bi mu amee muy Moustapha Ka gis nañ leen ci fekk mooy dañ leen a euh, dañ leen a dàq parce que euh, dégg nañ après ministre de la justice ni lañ fa wax waxloowuñ leen ko ñoom la engagé. waaw mais est-ce que loolu dàq xajoon na ci parce que nit ki nga xam ne c'est-à-dire ci lu wax ju mu wax nii nañ ma won lan moo ci wax ci yoon parce que kooku lu muy wax ci yoon la ko teg. parce que groupe bi ci boppam groupe Nations Unies moo rendre décision bind ko noir sur blanc mu ne ko man sama réew pare na pour wàccoo ak loolu parce que bu dee Sénégal parewul pour respecter loolu Sénégal jarul muy yóbbu ay ndaw foofu Genève di yàq suñu xaalis. représenter le ministre alors que amuñu waxtaan ak ministre bi par rapport à ces questions waxuñu aussi ministre bi yónniwu leen est-ce que ñoom aussi euh, violé wuñ li nga xamante ne moom moo tënk seen liggéey ñoom diplomate. non non violé wuñu man ba ma nekkee doctorant di préparer suma thèse doctorat d'état euh, yàlla defoon na ni jot na dem def ay stage ci commission boobu ay weer ma nekkoon de l'autre côté c'est-à-dire ci staffu Nations Unies bi xam ci yan anam la ñuy liggéeyee yan anam lan mooy principe bi lan mooy exercice bi en réalité ñoom euh, da ngay ñëw présenter sa rapport ONG yi benn rapport alternatif après mu am benn débat contradictoire mais débat contradictoire boobu fonctionnaire mënul anticiper boo ñëwee ba woolu ma wóolu ma jox ma mandat ne ma représenté ma man dama lay représenté ñoom xaatuñu ñu fa dara si wuñu fa dara li nga xam ne mooy engagé mais comme ñoom position officielle bi ça les dérange parce que quelque part ça les insécurise que Karim Wade du ñëwaat fii donc ñu dal di gis seen bopp wone euh, mbiru nervosité boobu moom lañu gis ci troisième mandat bi nga xam ne ñi nga xam ne ñëpp am nañ ci ay problème euh, defuñu lu dul wax li nga xam ne moom la constitution bi xaatim donc loolu nag mooy jaay doole alors euh, dégg nañu ay jegeñaali Karim Wade démb rek moo ci mujj Doudou Wade wax ni li ñu bëgg mooy nañu amalaat procès Karim Wade te ñëpp xam nañu ci wàllu yoon bu fekkee juum naa nga rectifié ma mhm. que pour mu amaat beneen procès Karim Wade il faut mu am ay faits yu bees loolu tey jii est-ce que dina yomb ci Karim Wade mu ñëwaat Sénégal te defaruñu procès waaw mais fait bu bees boobu fait nouveau bi mais loolu déjà bu ci njëkk mooy décision bi nga xam ne moom le groupe de travail bi teg ne Karim Wade euh, dañu war a xoolaat situation parce que ci anam yi nga xam ne moom lañu ko jugé dañu salfaañe ay ak ak ay yelleefam maa ngi fàttali quel que soit c'est pas parce que état du Sénégal day continuer di wax ne c'est pas obligatoire que c'est pas obligatoire caractère obligatoire bi amul benn juriste bu sérieux li wax du dañ benn juriste bu sérieux bi nga xam ne mën na la ne que mesure bi nga xam ne groupe de travail yu ONU moo ko jël wala beneen xeetu organe ça ne s'impose pas à l'État dañuy jaawale ñaari mbir en droit dafa am caractère exécutoire ak caractère obligatoire bu groupe de travail ONU di rendre décision décision boobu dafay tënk état du Sénégal bu dee sur le plan international état du Sénégal la ñuy wax nekkul état du Sénégal seulement Macky Sall mais état du Sénégal à travers ses organes judiciaires c'est-à-dire Cour suprême ak ñooñu mais aussi à travers ses organes législatifs c'est-à-dire parce que Sénégal benn pàcc la ci relation internationale bi donc pour ñu ci ko nag léegi foofu la Karim aussi wara jël ay responsabilités. ci naka ci naka. Mhm. ñaar benn man lu ma jàpp moom mooy su ma doon Karim Wade damay dellu si Sénégal fii benn. Mhm. parce que booy xeex da ngay taxaw. est que mën na ko ma ne man li ma jàpp man gëm ko ci àdduna mooy. non li nga gisee mbir yi ni mu demee boobu ak léegi est que bëgg ko tax na mu mën ko maanaam ñëw Sénégal. ma man lu ma jàpp gëm ko ci àdduna moom mooy nit ci loo nekk danga koy ñeme. Mhm. dégg nga. kon pour yow bañ a ñëw bi moom dafa ñemewul wala. non waxu jugé wu ma dama koy wax rek bu dee moom mu ngi may déglu. Mhm. Oh, jotaatuma ko depuis oh, ay weer yàgg wala at mais man li ma jàpp moom mooy. tey bu dee am nga benn décision wu organe international mi nga xam ne nee na yow ci anam yi nga xam ne dañ la jugé woon jaarul ak yoon da nga koy gàddu ñëw taxaw teg ko. mais Sénégal dafa wax ne moom c'est un état souverain et que fait nouveau boobu yow ngay wax ñoom gisuñu benn fait nouveau d'autant plus que Sénégal nanguwul tënku ci loolu nga xam ne moom moo tukkee euh, ci euh, euh, Nations Unies jëm ci nañu loolu du Macky Sall moo koy wax xam nga Sénégal dafa am séparation des pouvoirs. mais léegi dafa yàgg te gisuñu ci peut-être. lenn loo ne Sénégal ci nu mu laloo suñu constitution dafa am séparation du pouvoir ki nga xam ne mooy juger benn organe rek benn organe cote la ko yoon jox muy pouvoir judiciaire moom bu ñëwoon du dem seeti Macky Sall naan ko ay ndax est-ce que da ngay accepter day ñëw ñu jël requête dugal ko cour suprême demander benn procès en révision wax lu tax ñu demande procès en révision. sur la base de ces éléments juges yi dinañ wax ñoom est-ce que benn dañuy tënku ci li nga xam ne moom le groupe de travaay bi teg moo tax aussi foog ñu provoquer décision bi c'est-à-dire Karim Wade wala même bu fi ñëwul ay avocats foog ñu dem seeti dugal benn requête en révision bokkul bokkul ak euh, rapprochement politique amul dara dañuy dem ci yoon ba mu jeex benn léegi bu ñu demee foofu débat bi foofu la koy engagé mm-hmm. parce que maa ngi continuer di gëm parce que am na ñi nga xam ne ma ñoom ñoo jàngandoo fii même droit bi université Cheikh Anta Diop ñu amandoo ci même jour bi même diplôme bi ñu nekk ay magistrats yu xarañ yi nga xam ne amul coow du ñu dugg ci politique bu ñu demee ñu tegaleen argument yi man li ma gëm moom mooy mën na am dara. yow da nga jàpp la déggee.